asalaamaaleykum askan bi comme ni ma koy waxee saa su rek man la jéegu YouTube bi seen soppe di seen xarit maa ngi nuyu sama am di jàmm yi ak sama am di ay yi di nuyu sama fans yi du nuyu ñëpp di bëggee ñëpp di leen wax ne nag man la Ndoumbé Dieng yaayi Mama Nogay ak bébé Yacine dëgg du neex jigéenu Samba Aïssa bi ak musa Dieng caatu Sayer Dieng bi maa ngi nii kuy làqatu du ko wax kuy sàcc du ko wax tey nag damaa seet si koo xamante ne spécial la ci man muy sama xarit di sama soppe ñu naan ko André André nag tey damaa ñëw seet si dépôt bi moom laa bëgg a ñëw xool dama bëgg nag yéen Sénégal njaay wërngal képp képp kuy jënd ci boisson yaa xam boisson la yaa xam lu munti doon rek na nga ñëw jëndee si André parce que moo gën a yombule gën a bees la gën a neex la dëgg du neex André du ay foo maa ngi nekk si dépôt bi tey nag maa ngi sama koñ sama secteur laa nekk di def luma saf kon ni ma koy waxee rek di partager di salfañe di tëlaale def luma saf ak luma neex kon ayca ñu dem ci biir ma xol andere te ñëwaat wa ayca mu ngi non rek ba tay rek ñu ngi ni ci kër andere gi ya ma gëna xam rek boisson ya ngi ni man mom xam na ne tay la naan ba fasiyene fas rek ben yoon ndax man dama bëgg boisson sama xel surtout vinto bi ni ak ñom Sprite ak ñom Fanta orange bi xamal luma bañ koka sax dama ko bëgg gasel pom nak momay gëna kon man la la bañati nak ne top ma yow kay top ma ay yow sama xarit baangi ni Sprite xoolal gazelle pom wala du mo gazelle pom la kay ki fanta orange la ay yow sama xarit yaangi ni li li li li lii xoolal lii dugg si bii nag xàmmewu ma ko moom bii xàmmewu ko de ah XL la ñom nee nañ xam nañ ko kon kay kay kay yow yaama gëna xamé affaire yi man chikire yi la xamé bi lan la. XL la ah, XL la bële nak bële. bële tonique. Ah, mooy tonique mooy faj ci maanaam ay ay ay tooy ak yooyu. ah ok yéen yooyu rek ñoo fi am boisson yooyu rek ñoo fi am. waaw moo fi am waaw fi am ak Sprite am na fi am na Malta tamit. nga xam ne ah. yéen a ngi ci naan bu baax de xam naa dama leen a ñee. naan duñ ci naan sax ndax moomuñu ko. Ah. waaw ah yéen a ñëw dañoo jub de. ñii dañoo jub. ay ca yii ñooy yan. ay lan ay. <laughs> lii lu ñuy lu kaay waa kaay kaay. ah. 30 sport la. 30. Ah? te 33 sport. ah 33 soo ma mënaan 33 ay ay man lu ma dal nag. 33 sport. ah moom lu moom lu muy def ci nit. day day day bière la day mandiloo. il naaril mandi. waaw ah. eh, man a xam naa man su may dem ci bii ngeen may jox. Ah. bi même pap xam naa ngeen jox ko yeneen yi waaye man moom taamu naa bii ba pare bii laay jël xam naa ba ma mandee dina neex de sama am di jàmm yeeg sama soppe yi dinañ ne ay ñun suñu xarit bi lu ko jar ko waxee rek ba tey rek maa ngi ci kër André gi leen wax ne nag affaire bi fii la Géejawaay li sa laay soo jëlee oto ak foo munti nekk rek soo ñëwee ba Géejawaay li sa limaamu laay soo wàccee rek boo nee dépp André jarul laajte sax nga daal di egsi boo ñëwee dañ lay daal jaay jaay la may la lebal la fàtte la fayeeku dëgg du neex soo bëggee ñu livrer la soo bëggee nga ñëw jël si ko sa bopp bu si kanamee tuuti nag dinaa leen jox koo xamante ne nii moo leen jox numéro téléphone bi nga xamante ne nii moom ngeen di jotee waa kër André ba foo leen nekk rek ñoom ñu fekk leen fa indil leen li ngeen bëgg yaa xam la leen bëgg ci xeetu naan ñoom ñu fekk leen fa indil leen ko soobee yàlla incha allahu rabbi ayca mu ngi noonu waa ayca comme ni ma ko waxee woon rek ginnaaw jógee naa ci suuf si dépôt bi ci suuf maa ngi dugg nag ci bureau yi nag dugg ci ruq yeeg ruq ruqaani xam nga ne fii ma yëg boo xoolee fii rek war ngaa xam boisson yaa ngi nii nag ah lii ma la war a war a wan nag maa ngi engrais dëgg du neex waaye nag xoolal soo wëlbati ko man damaa gis loo xamante ne dama koo xam nga man mënumaa lii jàngumaa xoolal lii lii ma jaaxal lii lu mu doon ah xam naa ne am na tableau boisson bu nekk nii ci kaw daa mel ne emploi des jours yi la de wala moom lay nurool de wala du moom maa xàllaa am fit jàngoo nekk fi naan dangay làkk France di juum di def lu la saf rek ak lu la neex Lega xam nañu def nañ dugg ci biir ci bureau yi ma gis xale jigéen ñi ñoom ak ñoom Anne Marie wax ak ñoom yaa ma gën xam d'accord gis ngeen de comme ni ma leen ko waxee woon rek ci biti nee leen bu may dugg ci escalier yéen rek may gis bi ma duggee tableau bi ma jàkkaarloo war ngeen xam ne kon ma ngi kër André léegi nag jóge naa ci suuf si dépôt bi yéeg naa ci kaw nag ci bureau bi ma ci bureau ay rek fi fekk ma xam na jigéen tamit ñu ngi ci waar wi ndax tedd rek ma dëkk ak ñoom nak fi ci koñ bi xamalu leen lu dul liggéey leen xamal ma dëkkoon ak Émilie dëkkoon ak Anne Marie ñi des ñu ngi nii jigéen nii ma fas ne na dëkk sama micro laaj leen ñoom lan la ñuy liggéey ci ci ci dépôt bi. Ami Fall laa tudd. Ami Fall. yow mënoo woon sant Dieng. Dieng a dàq di. Fall a dàq Dieng. ah waaw. waaw lan ngay liggéey fii nii ci mm, ñun ñoo yor wàllum facture yi ñoo jël commande yi après facturer ko soog ko jox patron bi. Ah. ñun ñoo yor wàllu boobu waa. ah d'accord kon faaleen bi. commercial bi rek. Ah. waa ñun ñoo yor boobu. yéen de xam naa ne ku ñëw fii xaw ma wàllum commercial lañ koy xaw ma luñ koy wax waaye dina kontaan ndax man xale yi ma fi fekk ñëpp a jongo ma masala ba man damaa bëgg nit ku jongo ma dëgg du neex yéen doo leen ay foo waaye nag maa ngi lay kontaanee faaleen bi di la wax jërëjëf merci beaucoup sa wax rafet na xam nañ fi nga féete léegi nag yéen ku ñëw rek ci yéen lay ñëw jéen yow ban wàll nga féetee fii ni waaw man comme kii nu mu ko waxee rek sama collègue bi ñun comme boo bëggee benn produit soo ñëwee di jënd da ngay ñëw taxaw fii nga wax loo soxla ñun ñu facturer la après nga dem fay caisse comme genre facturation boo ñëwee daal nga wax loo bëgg ñun ñu facturer la loolu la ñuy def ñun ñooy jaay daal ah, yéen daal yéen a yor wàllum njaay mi ak facture ak ñoom seen luy dugg ak luy génn daal si seen loxo lay jaar ah Ida yow noo sant bas ah Ida bas ah yow sant neex na Ida bas ci loo ne maa ngi si jàmm. yaa si jàmm bu baax. yow ci ban wàll nga féetee fii ci dépôt bi. bon man maa ngi suivre vendeurs yi def prévente. Hmm. léegi bu ñu wàccee seen chouchi yi laay traité. Ah. yow loolu nga fiy def. yow wàll bi nga féete tamit am na solo de. am na solo bu baax a baax. bu baax waaw ah. léegi nag maa ngi leen di kontaanee. maa ngi kontaan ci yéen bu baax ndax mënoon naa fi ñëw rek ngeen jàpp seen kanam yi mariner ko waaye yàlla dogal a defoo leen ndax boo leen mariner woon seen kanam yi ma dàq leen a mariner sama kanam waaye defoo leen ko ma di leen jaajafal na di wax ne ay jigéen ngeen te ay ndaw ngeen góorgóorlu leen dina baax yàlla baax na góorgóorlu gis ngeen rek ba ni ma ko waxee woon rek ba lay paree gu ma de ba tey maa ngi ci dépôt bi nii rek kii nag mooy Émilie Émilie ngi nii yaay André bu ndaw dëgg du neex sama xarit baa ngi nii ma bokkoon nag moom nag benn kër mu nekk nit ku baax nit ku simple nit ku amul benn bruit léegi nag ma ñëw ci dépôt bi nag daal di koy fekk ci bureau yi ma fas yéene ko nag direct sama micro laaj ko moom lal fan ban fan la féetewoo fi ndax moom nag mooy yaay borom dépôt bi. naa def maa ngi fi Ndour ça va bien. yaa ngi ci jàmm waaw. yow ci ban wàll nga féete. Mm, ñu ngi ci wàll facturation bi ñu ñooy équipe kii. André Mendy dëgg la dëgg la waaw ñu ngi fii pour ku soxla dara fii ngay woote ubbi nga ñëw taxaw wax la nga bëgg ñu defaral la ko nga passé waaw léegi man tey ji bu ma toll woon benn dëkk ne wala ma toll biir dakaar ci ville ba ca biir léegi ma soxla woon fii boisson wala dara ban numéro ngay joxe pour boo xamante ne suñu leen boo rek leen di jot yéen directement fii comme boo soxlawee produit boo ñëwee fii dañu lay jox numéro bi da ngay woote si 77 306 58 60 loolu dafa leer numéro baa ngi noonu kon nak ku bëgg jënd boisson rek ak fo muñti nek rek mun nga ci woté légui yow emily buñu woté da ngeen koy livrer da ngeen di livrer wala yeen une fois borom ñëw ba fi non non jarul jarul jarul ngay déplacer wu ah. bo woté après ñu ñoo lay livrer ak fo muñti nek waaw ah. ah. kon kon yeen dégg ngeen ko kon nak mu ngi non légui nak suñu chaîne bi mu ngi ni RTV la tuddu RTV référence soy tapé si YouTube da ngay def RTV nga def référence nga def waaso wala nga def RTV def waaso su ko defee dangay nga daal di gis suñu kër gi bu ko defee boo duggee ci kër gi de lépp loo bëgg a gis rek di ko gis ndax li ñu couvrir bari na lépp a ngi ci biir tegu ma rek ndax tey tamit Anne Marie ngi nii toog ñu dama gis xale yu jigéen yëpp ñu beeroo fee toog moom kese mu nekk ci bureau ma ne nag il faut ma lijjanti ko moom lan lay def ci bureau bi Anne Marie ci loo ne maa ngi nii maa ngi ci jàmm waaw maa ngi ci jàmm waaw yow dépôt bi ci ban fànn nga féetewoo yow man maay caissière bi maa nekk ci wàllum xaalis bi facture bu jógee fee fii lay ñëw ma enregistré encaissé suñuy wàcc wàcce doog a def compte. daal maanaam gis nga man tey ji bu ma doon ñëw ci déppo bi nii fii fii laay ñëw fii <laughs> fii laay ñëw affaire bi fii la kon maanaam ngooñ bi fii lay jaar daal léegi nag man xam nga nu may def su ma fi ñëwatee fii laay ñëw toog comme fii la xaalis bi di jaar te man dama bëgg xaalis sama xol. fii laay ñëw toog yow fi nga féetee wànn bi rëy na nag dëgg-dëgg du neex waaye amoo fi benn problème rek fi nga nekk nii yaa ngi nekk coolement nicement. te aw ma fi benn problème bi ma fi nekkee ba léegi am fi benn problème. Mhm. léegi yow looy wax sa patron André. André daal aw ma lu ma koy wax lu dul gërëmal ko rek ndaxte depuis bi ma fi nekkee ba léegi mosuma fi am problème waaw lu dul liggéey rek la ñu seek am fi benn problème gërëma ko rek laa ci am waaw. waa kay merci beaucoup. waa Aïcha comme ni ma leen ko waxee woon rek pare gu ma bi ma jógee ci xale jigéen ñi nag xam nga ci kaw laa demoon ci bureau yi waaye instant bi damaa wàccaat ci suuf fi ma wàcc nag mooy ci nga xamante ne mooy dépôt bi nga xamante ne moo jiwte dépôt bi ma jógee bii mooy mooy premier dépôt bi léegi xam nga ñaar la boo jégee tali bi dafa am benn am bu nekk ni côté bi nekk côté nag laa nekk nii maa ngi fa nekk nag ki nga xamante ne ni mooy borom dépôt bi muy muy Seydou Seydou nag yow noo sant tur bi waxal naa la ko ba pare kay léegi sant bi rek ngay wax Seydou laa sant maa maay Seydou maa maay Seydou waaw bu dépôt côté dépôt bi fii ñu ñoo fi gérer quoi ku soxla boisson ñoo lay ubbil jox la li nga soxla quoi li boisson bi ngay gis ni moom mooy Mayser léegi mooy Royal 10 comprendre nga am na ay capitaine ay colobset ay sincère na yooyu ay doom gazia lépp loo soxla daal ci wàllu sàngara ak boisson yëpp am na ko waaw. yéen boobu ngeen féetee waaw Sénégal na ma di leen xamal ne nag kii ngeen di gis nag sama xarit la Seydou sama xarit la sama gaañ la sama nit la nekk fe nekk bu yàgg te dara mosul ñaaw sama digganteeg moom ma ko doon laaj nag fii tey jii comme ça boo nekkee benn dëkk wala nga nekk biir Dakar fii nga bëgg nga bëgg jënd boisson wala nga bëgg a jënd daal lu bëri daal léegi yow nooy def te bëggoo déranger wu ñëw ba fi géejawaay nag nan ngay def bi ci gën a gaaw 77 306 58 60 mooy numéro boo xamante ni moom mooy numéro patron bi. waaw nekkul numéro boo xamante mooy numéro xale yu jigéen ñi. boo ko téléphoné. ñu facturé la après euh, am na ay éléments yoo xam te ñoo koy sarre yóbbu la marchandise bi doo fay transport. Ah, waaw doo fay transport doo fay dara. Ah, ñu ñoo la koy wàcceel ñu ñoo la koy dugal ba fi sa ba sa place. Hmm. ñu delluwaat loolu yëpp patron bi moo ko kippee quoi. waaw yow lii neexul man teemaa commencé jaay ay xeet yi ay boissons ñoom seen dem ubbi fële rek bëgg rek ñuy déplacé wu di ma indil waaw man tamit daal moo tax ma wëyu même bu dee benn case nga jënd sax moom moo la ko yóbbul am na ay fas yoo xamante ne ñu pour loolu la ah. fas yi ñu lay livrel hmm. ñu lay yóbbu ba fi nga dëgg ñu jox la si hmm. bëgg boisson bi hmm. waaw doo fay transport doo fay dara doo fay liggéeykat bi tamit ah. yow eh li neexul oh, li neex na de eh André nak limi def dafa neex de Seydou eh ye li ngeen di def dafa neex léegi nak yow sa diggante ak André lan la mbaa yeena gi ci jamm dal man dal loolu la gis xawma nak yeen ndax ki tëdd ci lal dal mo xam ay matam xawma nak yow lo ci xam non sha allah ñun kay ñu ci si kay André mom jàmbaar la kuy xam André André jàmbaar la mm. kat la ku bëgg employé am eh, dañuy liggéey heure wacc heure wa loolu eh, ki nako quoi waaw moom daal jàmbar la quoi jàmbar la. waaw jàmbar la. waaw merci Seydou liñ naan wax sa mbaaxu waaye dina wàññi si sa mbaax dara yow danga ngaa baax rek moo tax ngay wax baaxam ndax yow tamit kenn du yow ndax bi nga fi nekkee ba tey yàqoo fi dara lu avancé dépôt bi rek ngay wër mu ngi mel ni dépôt bi sa alal la waa presque sax sa alal la ndax tey fi ngay dee fi ngay defee sa lépp macha allah maa ngi lay ñaanal nga eggale ak jàmm ak salaam. merci beaucoup wa ay ayca ko ni ma leen ko waxe woon rek ba tey maa ngi ci depot bi ba tey pare gu ma bi ci Seydou nak dama gis sama benen xarit bo xamante mom tam ci depot bi la nek di fi liggéeyee ma bëggoon ko laaj mom lan lay def ci depot bi ak lan la fi liggéeyee ak lan la xam ci depot bi sama xarit no tuddu man euh, maa ngi tuddu Jokin Gomis. Jokin Gomis. wa wa dëkk fii. non maa ngi dëkk Yëmbal. Yëmbal Yëmbal Nord yow ban fàll nga féetewoo fii ci ci dépôt bi parce que dama lay gis chaque jour ngay téla a ci si. si c'est vrai bon ñun ñoo wo walum walum terrain bi ñun ñoo nek euh, ci terrain bi ñun ñoy décharger ñun ñoy charger waaw. ok mbaa ñi tamit wàll bi ñu féetewoo am na maanaa de ay déchargé ay chargé ak ay yóbbu ay indi ay ñoom seen ma ne la damaa ñëw nag sànq dugg fi fekk la fi ci beneen dépôt bi nga xamante ne moo njëkk ma ñëw nga génne boisson bi ne ma baax na si yow day faj pratiquement ma doon laaj ah yaa ma ko jox de fii. faj bon kii énergie la 3X la. ah 3 la bon day faj coono day faj lépp. Hmm. aussi tamit bon comprendre bu fekkee am nga beneen boo sonnee boo sonnee dëgg boo ko naanee aussi tamit bon. da lay da lay soulager quoi ok. ah kon dégg ngeen ko kon ay ca mu ngi noonu fii daal lépp a fi am maanaam xeetu boisson yëpp a fi am daal lépp lu ñuy naan rek am na fi ak foo munti toll ak foo munti nekk li nga bëgg wax ko rek soo ko waxee rek ñu daal la koy livrer ci saasi du yàgg du am benn problème. ah du am benn problème loo soxla loo bëgg lu ne. Hmm. loo bëgg ci xeetu boisson. Hmm. boo see fii nii même si c'est de l'alcool. Hmm. ak loo bëgg ay whisky gin.

man de fii laa war a toog rek ñu tëj ma ci biir fi man naan ba doyal ci sikere seeg ñoom seen ak yi wàccee Fatick maa ndax damaa sonn dëgg du kon nag léegi ma la nga dem ci fekk maa la amul benn problème <laughs> yow kay yéen nekk seen liggéey kay yàlla na leen yàlla jàppale ca kaw ca kanam rek waa ay ja kon nag tey jii ñu ngi nii dañoo ñëwoon seet si André tey ñëw seet si deux pommes wax naa ak ñëpp ba pare waaye nag man waa ji dama koy gis ci oto waaw man maay André Mendy bon liggéey moom euh, laajul mu yaay patron yooyu waaw ku liggéey moom da liggéey rek waaw man man liggéey laa xam tey liggéey moom euh, il faut nekk sur si le terrain toujours sur le terrain rek waaw waaw loolu waaw ok kon gis ngeen André de moom moom nekkul ci bureau rek taal ay clim ak ay ventilo toog di seetaan ay télé ak ñoom tam teg ay tànk ay sisee ay noono déedéet moom saa yoo xëy see moo xale yi ñooy ñooy nekk ci suuf ñooy xëy seendoo ñooy wàccandoo ñooy dóorandoo waar day yëkkati ci kees yi yore kaana bi di bind di yëg ci oto yi di wàcc soo ñëwee sax doo xamee kan mooy André tey ji bu doon nag li ñu bëri duñu xam kan mooy André kon nag ne saa su ne rek maa ngi nuyu sama am di jàmm yi ak sama am di ay ak sama soppe yi ak ñi nga xamante ne ñoo ma bëgg ma bëgg leen ñu nekk ay xarit nekk ay kolkërés ma ay fo man yaayu Mama Nogay télé soo bëggee dugg ci site bi da ngay def RTV boo defee RTV nga def waaso daal di gis man jéego YouTube bi su ko defee nga daal di xool loola saf ak loola neex waaye nag ay ca ba beneen yoon